di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñëwaat nañ beneen yoon ci benn silsila maanaam benn chaîne boo xam ne bëgg nañ ko def ci mu aju ci li nga xamante ni moom mooy tabax kër yi te dangay faral di baamtu ne bu kër yi tabaxoo rek mbedd mi dafay daal di tabax kër yi lu mu gën a jàkk mbedd mi di gën a jàkk waaye kër yi li yakku gën mbedd yi di gën yakku yàqu commencé woon nañ nak ba ag ci eh, li nga xamanteni mom moy naka lañuy ñuy borom kër ak naka lañuy ñuy li nga xamni ne soxna ci bu ñëk ba ñu ngi doon wax ci importance bi nga xamanteni tan soxna ci bir néegu sey am nako tànn jëkkër ci biir néegu sëy am na ko ndax ay base la yoo xamante ni li ci reposé wu mooy njariñu ak islaax wala njariñu wala defarut li nga xam ne mooy société bi ëllëg ginnaaw bi ñu tuddee tamit ne kat dafa bokk ci li nga xam ne dafay euh, ñaawal li nga xam ne société maanaam day aar société bi bari yu bari ci yenn ci ñaaw te du ci am tey nag dañoo ñëwoon digon nañ la ne la bu ñëwé dañuy continuer ndax dafa am ben ñettali bu nekk ci alquran bo xamné japp jàpp nañ ni ku ko settantal mënees nga ci xamé goor gu baax waye bi nga am ci nit yenn màndarga yenn alama yo xamné yow mi dem bay tan soxna wala di tan burum kër bu nga ko ci amé te mooy qissa yonent yàlla Muusa alayhi salaatu wa ala nabina wa ala jamil anbiya Muusa alayhi salaatu wa salaam umpale woleen ne mu nga yore woon ci keppaaru Firawna gannaaw ba natt ba ko fa dal dal nit génne àdduna ci loxoom ci lu di ko wër ba waaja ne ko gaañu ñu ngi lay wër innal mala innal ay ya'tamiruuna bi gaañu ñu ngi lay wër faxruj gaañu ñu ngi lay wër pour rey la génnal man naa ngi jox conseil te génn foofa mu mel ne dundu Muusa fa la war a commencé fii dafa am benn sew sew bu am solo bu ci nekk mooy ñaare yeneen yi la plupart am na ci ñoo xam ne. dañuy dund al istigrab te moom mooy ak tumuranke ñu jiitu yàlla di leen yónni ba jaar ci yenn mbir yu metti ñu soog di leen yónni Yuusuf def na ko waaye Muusa mii tamit am na ci li mel suñu yonente la yàlla nattoo na ko mu nekk jirim ba muy xale te ba muy nekk nag lu metti waaye fi mujj dafay mel ni sax boo toppee seen dund dafa melni lolu borom bi subhanahu wa taala da leen doon tabax ndax kat dafa xam ni ñii kat ay nit lañ ñoo xam ne ñoo wara jëriñ société bi ëlëk kon dañoo wara nekk ñoo xam ne ñoom li ñu mën a enduré li ñu war a mën a muñ keneen ku dul ñoom waru koo mën a muñ ay mbirum fi la tambalé mbir mo ma xawna mu daw génn dëkk ba lim njëkk wax moy lan rabbi najjini min al qawmi adalimin yalla yalla nang mo musul ci loxo yi nga xamanteni ñom ñoy ñooy kat yi ñi moo mës a aaday yu bax ñep sa bu ñu jakké li ñi ñëk def moy delu ci borom bi subhanahu wa taala du ñu yaakar ko dul yalla du ñu ñaan ko dul yalla tax mo wax rabbi yow sama borom musal ma ci loxo yi nga xamanteni ñom ñoy ñooy kat yi borom bi tek ci mu ne ma wara dama amadiyan bamu mu nak ba djublu fi nga xamanteni mom moy ndoxum Madiana wala nga ne bëgg na dem Madiana ngir mar na bëgg na nam musa alayhi salatu wassalam dem ba fofa fekk fa mbolo ño xamanteni ci ay sam kat ño xamni ñu ngi wëgg li nga xamni jur la ñu len mandal naka nonu mu yem ci ñaari jigéen ñoo xamante ni ñoom dañoo la nale jaxasoowu ñoog ñoom mu mel ne loolu ba mu ko gisee mu gis ne xam ne ñii dañoo am aajo ci lii waaye ñoom mënuñu cee am accès dañoo am aajo ci lii mais mënuñu cee am accès Moussa ñëw ba ci ñoom ne leen maa xatubukuma waaw luy seen lu tax ba tamit demoo leen uti ndox wëgg li nga xam ne mooy seeni seeni jur ak yu mel ñaari xale jigen ni ko ñun de ñu nàndal suñu jur wala mënuñoo am ndox hatta li nga xamanteni ba ñu fekk li nga xamanteni ni moom mooy sàmmkat yi wëgguñu seen jur ba pare ñu fekk sàmmkat yi wëgguñu seen jur ba pare ñun mënuñoo am ndox Munyo, munyo mun ñoo am ndox léegi nag ku Cheikh Nasir Saadi tafsiram bi di tafsir bu am solo mu ne nag bokk na ci moom li mu tudd ne daa taxoon jigéen ñi mënuñoo ak góor ñi doole gi ci la waaye tamit gi ñu ak am gurus manam am kersaw di jaxasoog ñi nga te ñoom ay jigéen lañ ndax ka xam nañu liggéey boobu nag liggéeyu góor la waaye li ñu wax Moussa mooy ñun mënuñu ko te suñu baay mag la ay xale yu ñu yara ñu noonu moo mel ni ngi lay junj kër bu baax ñun kat suñu baay mag la te ñun ñoo fi sës ñun ñooy dem liggéeyi Moussa ba mu gisee loolu yëkk xam ne ñii ñu jara dimbali lañ ñun fàtte Moussa ci tumuranke la nekk ak tumuranke ni mu mettee mu mel ni fàtte na bosam ndax dafa bokk ci melokaan yi nit ku baax dëgg euh, ñaaree bu gisee nit ku tumuraanke ni moom moom moom bu tumuraanke kon fàtte na bosam loola moo daan dal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba gaañi naan ko ab nit la koo xam ne ab yonent ti boo xamante ni day joxe joxe yu ñu koo xamante ni ragalul ñàkk te pourtant xamoon nañu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax dëgg fa yàlla daan na toog ay weer yoo xam ne ci du tàkk këram te pourtant daanu ko empêché muy joxe lii melokaan la ci ne góor gu baax mooy koo xamante ni ku dëgër la ba nga xam ne même njàqare yi bu ñëwee àttan naa teg bësam fële ngir li nga xamante ni mooy yow sa bas yow sama jigéen wala ngir li nga xam ne mooy société bi dañ koy jàng sax ci biir yonent bi alayhi salaatu am na benn bës benn bruit bu fort daal di kii ca biir Madina. gaa yi génn di xool lan la ndeke yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom génnoon na bu yàgg ba dem xooli lan la seen ko muy ñëw di dawal fasam di ñëw loolu moom mooy mandargay góor gu responsable góor goo xam ne kii maanaam moom dafa mel ni pare woon na pour tay lu dundam pour njaboot gi nga xam ne moom moo nekk ci ginnaaw Moussa loolu la njëkk a def moo tax mu ne fa saqaaluhuma summa tawalla ila dhilli mu daa di leen nàndal nag mu dem ca kër ga kon mam leen di nàndal mooy fa mu leen di nàndalee coono ngi fa ndax naaj bi tàng na ndax da leen rootal ba pare jox leen euh, soog a dem ca li nga xam ne mooy keppaar ga te li ci ëpp ci solo mooy amut leen loo xam ne sàkku na ko ci ñoom te pourtant kat mu ngi ci jafe-jafe mën na leen kat man it damaa nekk ci jafe-jafe te yéen it ngeen dimbali ma waaye da koo def rek bàyyi leen ñu dem waaye du ko rëccu benn yoon ndax borom bee ko wax innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allah laa yudii'u ku ragal yàlla te muñ yalla du musa miinal jëf gaa gañu bax ñi du ko musa neena mukk sax musa nono dem mu leen nàndalalee ba pare kon gis nga melokaan bu ñëk moy goor gu responsable dañ ko ci yëk ko am yermande ko ci yëk ko xamanteni pare na sax pour tay la dundam pour yow su ma nee tay ci deug nak motax may wax ci deug mom motax may wax motax responsabilité yow sama jigen de ko taamu ci gor bu am solo bu am solo la ndax jigen dafa lompoñ ba nga xamni lompoñ bo xamanteni buñ ko seetaanee rek du bax moko ni ci ndénkaane yeen ci bari wassalam wasalaam euh di jitu ni genn aduna moy ma ngi di denk jigen ñi di wax na ci benen hadith mu ne charte wala kolere gi gën yey ci ngeen matal ko moy kolere go xamanteni ni da ngeen cee daganal ay pey manam li tax ku jigéen ki dangal la ba nga mën a jonjoog moom kóllëre bu fa nekk charte bu fa nekk moo gën a yee ci matal ko damay déggaale ci loolu tamit ki ngay ut ci mbirum jikko nga nekk gor koo xamante ni lu mu seq lu mu kóllëranteeg yow incha allah ñu fekk gàllankoor amul dina ko matal Moussa su ma tawallaa ila dilli mu dem ca keppaar ga toog ba mu ca keppaar ga toog lan la wax borom bi ànd ak li nga ma xéwalee yépp tey laa la gën a soxla ba tey melokaanu gaa ñu baax ñi sama jigéen dooy ut utal boroom diine boroom diine du jàmbat ci mbedd mu mukk lu la gàcce mukk ndax lu mu am ci naqar lu nekk ci boroomam lu koy tiis du ko tiis feneen du ko dul tiis ci boroomam lu koy tiis Moussa nee na ànd ak li may am yépp yow yàlla li mu jot a xewal yépp tey laa la gën a soxla te it ci mu gën a soxlaa borom bi mu keroog boo ko yàlla gën a xéwal fu mu toll koy soxla noona xale yi jigéen ñi dem ba seen papa nettali lañ koy nettali borom bi ne wa jaa ixdaahuma tamshi ala istixyaa kenn ñaari xale yu jigéen ñi ñëw dox nag ci tenkam tenkam waaye ci ànd ak kersawu ku kersawu waaye ndeysaan doxin ku kersawu ba nga xam ne euh, tànk yi sax mën na caa jaxasoo ndeysaan te du ko ndax kersa ga muy melokaanu nag jigéen ju baax bu baax sax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi lim ci xadis mu ne iza eh, iza lam tastaxi fasna ma chita nit bu demee baamatul kersa rek lu ko neex lay def kon nit bu amee kersa am na yu bari yu muy jombul kon baasu jikko ju baax jàppal ni kersa ci la baasu jikko ju baax baasu melokaanu bu baax ca li yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne fasfar bi zaati diin te yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne alxayaau shubatun min al iman kersakat branche la ci ngëm yàlla kon ci diine la bokk ci diine la bokk dafa bokk ci liy tabax li nga xam ne mooy ngëm yàlla ci tabax yi ngëm yàlla yi la bokk kon boo gisee ku ko am amal rafet njort ci moom surtout nag mu dul jullit am na yu bari yoo xam ne du ci dugg ñu bari yo xam di ci dugg amna benn wax kat bu wax mu ne bari waana ay ñaawteef fa rubba qabixatin mu ne fa rubba ma xaala bayni wa bayna rukubiha illa alhaya. mu ne bari na ci ay ñaawteef yoo xamante ni dara doxul sama digganteeg moom ci ma def ko lu dul kersa mu nekk nag actuellement ñu commencé di rekki di ko dindi ci suñu ndaw ci suñu ndaw lu bare bare bare bare di ko dindi ci société islamique bi di leen wan ne ne kersa ji ci boppam moo leen tardeel xoolu ko jigen ki mo ngi dox tam tamshi al istihya mo ngi dox and ak kersaw ñew ci musa ne ko inna abi yad'uka li yajziyaka ajra ma saqayta lana melokaan ñu noonu ci kër gu bax lunek deug loko defal lu nekk day fexé xol nan la la koy fayé loko defal ci lu baax teraanga boo ko ji bu nekk day fexé ci num la koy fayé motax sama baye bi mu ngi lay wolu ngir liñu defal ci mbax ni mu fay lako sama bayi, mi ngi lay woru ngir li nga xamanteni mom nga ñu defal ci teraanga ñu delo ko musa dal di juk dem ba ca bay ba netali ko diko dal gor gi ne ko la taxaf na jawta min al qawmi zalimin la mu waroon manam li nga xamanteni ci njëkk sax mënoon na wax ni jigéen ñi ne ko mom fu mu fu mu la bëgg ñu mel ko de ci borom bi la ko motax mu ne borom bi tay la la soxla loolu nga xam ne fu mu làqatoo lu gën wér ba mu demee ba def mbaax gii dana ko borom bi subhanahu wa taala loolu góor googu góor gi bu nettali ko lam koy nettali góor gi ne ko na sa xel ba am nga foo làqu ñooy tooñ yow ci yow xiwér njëkk mooy njàq rek tumurànk yàlla teggil na ko yàlla tamit dox bu dugal ko ci kër goo xamante ni ay góor lañ ni moom baax rek lañ xam ndax buñ mën defal baax ñu war lañ ko delloo conjoint sama góor buy dugg n'importe kër kër bu la taa yóbbu waaye day tànn xoolal kër goo xamante ni am nga yaakaar ni waajur yi waajur yu baax lañ ñu yar seen njaboot lañ nga dem dugg foofu di fa soxna lu am solo la noona góor gi yemu ca ndeysaan jigéen ñi ni ko yaa abati sa jiru ah, yow sama baay te nga employé kii kii gën koo jël employé ko ndax inna xayra man istajarta alqawiyil amin xoolal jigéen ñi li ñu seedeel Moussa man mel ni ñoom it ñëw di gën a feddali seen baaxu baay ne ba seen baay dafa def ci ñoom baax mooy Moussa lam leen defoon ñu reconnaître ko lan la ñu ne ko kii de boo ko employé pap jàmbaar dëgg la ndax kat xoolal ba di dimbali ci naaj bu tàng ba la ba pare ko def dem ci kër ga waaye amin amut lépp loo xam ne sàkku ñu ko ci ñun ku wóor la. ndax nu ñu jëflante ak ñoom ba daal di wax ne ko inni uridu an unkixaka ixda binatayya haatayni ala an tajurani thamaniyati xijaj ñu ne ko li ma bëgg mooy dama laa bëgg may kenn ci samay soxna mooy may faral di sànni fii xeer célibataire yi ne leen njàqare boo ci nekkee bokk na li gën a gaaw ci génne la ci mooy am soxna xoolal Muusa njàqare ga mu nekkoon mu mel ni xéewal bi ko yàlla ji waa ji njëkk defal ginnaaw fu mu amee fu mu làqu ba amee fu mu làqu ba pare mooy li koy gën a dolli dal mooy soxna suñu bàyyi aadama yëpp loolu ko yàlla defal ginnaaw ba mu ko dundalee ba pare mu nekk ci aljana borom bi avant mu naan ko uskun ne ko uskun ba pare ne ko ak sa soxna soxna dafa nekk dalluwaay ci góor bu baax ak ko nekk du lu ñuy xeeb de. ndax eh, <laughs> taalibataire yi yenn saa yi bu ñu leen dee tooñ tooñuñ leen nii rek par hasard waaye lu am la dalluwaay la dafay mottali lu bari xoolal borom bi li mu xéwalee mooy xoolal góor gi li mu ko njëkk a mooy ne bu ma la employé dama lay ci lan mooy nga liggéeyal ma juróom-ñetti góor gi ci mbaax ga xamoon nañ ni mag moom li ñu naan mag góor lu ko neex def waaye góor gi defut loolu de xoolal li mu jëflante Moussa lan la wax ne ko liggéeyal ma juróom-ñetti at ma defal ma jox la li nga xamante ne mooy sama soxna sama sama doom soxna. waaye nag wax dëgg boo ma mottali lii ba fukki at yi dama jël maanaam mu ñaan ko ko ci teraanga moom mu mel ni day gën a feddali ne kër gii kër gu baax la ndax dañuy faral di wax ni mag moom na mu mel ba muy gone bu màggee rek li ñuy faral di wax naan <laughs> na mu mel rek daanaka dafa reflété ba muy nekk ci ba muy nekk xale kon mag mii bu ñëwee am yar gu toll nii gone nekk taxaw ci kanamam mu koy ñaan njekk yi mag mu yaru la te bu yaroo rek am nañ yaakaar ni feeñ na ci li nga xam ne mooy ay doomam mu ne ko boo ko defee yëpp ma daal di jël Moussa ne ko ñaari digg yi ay yemal ajjala yi ne xabayit ñaari digg bu ma ci matal muy fukki beeg juróom bu ma ci am genn xor ñooñu xol sama xol bu yaatu laa koy defal maanaam dama koy def ak bànneex te it wax dëgg fi yàlla li may wax nii yàlla dong laa ko wér lii lépp dox seen diggante comme ni ko yonent bi alayhi salaatu waxee ne jaaykat bi ak jëndkat bi bu ñu dëggalee seen njaay seen jënd yàlla day barkeel njaay ma barkeel kee li mu jënd moo tax jëflante bu mu mënti doon na ca dëggu aju lépp ci yàlla loola dogal yàlla dogal Moussa yar waaye xoolal góor gi ndax par hasard la tamit mu ne Moussa ndax lan la ko doon def da ndax par hasard la mu jël Moussa ne ko kaay ma sàmmloo la ba pare mooy la sama soxla mooy la sama doom dana yenn saa yu bari waane ni ñuy xamee nit ku mën a sàmm dëgg boo ko joxee jur mu koy sàmm yërmande ji muy am ci moom ak toppatoo ji ba mu jaral ko lu mu am lu mu bu gisee jur gi lekkul sax day dem uti lu mu leen lu mu leen fu mu da leen di sàmm loolu ku ko mën yar soxna da yomb moo tax kon dafa mel ni góor gi dafa testé li yonent bi alayhi salaatu wasalaam iza ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu ay jikkoy Muusa dafa mel ni da koo testé donc loolu manam li mo ci xew way da fay melni mo ngi koy tesse waale ci jikko yoy te alhamdullilah mu réussir ci lolu xolal góor gi sakku len ni musa ci alal xamni ne ni Moussa amul te pourtant moko yett ci keur gi ne ko kay ma may la sama dom lan la séntu ci mom mbax kesse nak mbax goo xamanteni mom moy indi texe ci aduna moy texe ci alakhira yow tamit sama yaay yow sama bay tan lan sa dom góor gu bax jàppale ko ci tan bi bu na alalu aduna keuf lu fi waay am tey ci àdduna ëllëg mën na koo ñàkk boobaa nooy def sa waaye lu fi am lu fi waay am ci mbaax bu fekkee ne yàlla dong moom moo am yàlla da koy dimbali bu mbaax boobu lay génnee àdduna te dina ko wàll dina ko wàll ci nga xamante ni mooy sa doom ji ba say sët nekk xam ne ñu baax ba foo génne ñu si ay sëtu diwa nekk nii mu nekk loo xam ne looy tiitaroo dëgg la looy tiitaroo dëgg la lan moo la ko may mooy tànn gi nga tànn mbaax mbaaxu ndaaxu àdduna goo xam ne da lay indil eh, njëriñu àdduna ak alaaxira te tànnoo li nga xam ne mooy alalu àdduna ñu jigéen ci foofu Moussa matal mbir ma war a delluwaat nag ci ay mbokkam waa ndeke góor gi perte ki mu may doomam ndeke moom moo nekk proche beneen yenent bi nga xamante ni moom moo waroon ñëw délivré li nga xam ne day banu Israël est-ce que yenent yi am na ku leen féete kaw ci baax góor gi doon wër mbaax ak texe àdduna ak àllaaxira ndax perte na fii déedéet moo tax kon wallahi boo jëfee li yonent bi wax ne ida ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu doo ko réccu mu des nag ndax ba koy wax dama koo wax nii rek ne diine ak jikko moom mooy ëmmal njariñ wala danga koo wax nii rek waaye am na lu ñuy tuddee matérialisme alalu àdduna joo xam ne yaa ngi ko ciy séntu danga ko wax nii rek waaye dëggul ci yow loolu moo ca des est-ce que dëgg dëgg dëgg na ci yow Moussa jóge fa war a dox nag dellu ci bokkam mu dem ba fi nga xamante ni mooy jabalu tuur mu ne xolal li njëkk Moussa mu ko wax pour mel ni mu mel ne la ko paa bi doon entraîné ci yar taxaw na ba mu doxee ba gis benn sawara mu taxaw mu ne li nga xamante ni moom mooy njaboot gi ba njaboot gi ne leen inkusu maanaam taxaw leen ne le làqu leen fii ndax gis naa fee safara gis naa fee safara su ma fa demee amaana dinaa fa xam lu fa nekk wala bu fekkee ne sax safara kese la ma indil leen loo jaaroo kon ñu ne dañoo nekkoon ci sedd xoolal lim njëkk def maanaam bakkanam li yonent bi alayhi salaatu wasalaam defee ba mu moom la njëkk a def mooy bakkanam la njëkk dem xool ndax fee sécurité am na fa ba pare responsabilité boppam dem xool li fa nekk ba pare soog ba pare ne njaboot gi toog leen fii xaar ma. lu fa mën di nekk lu njariñ daal dina fa am lu fa bu fekkee ne dafa am ñu fa nekk fa lillahi alhamdu bu fekkee sécurité fa lillahi alhamdu bu fekkee ne tamit safara dong bu fa nekk dina fexe am nu ma fay amee lu ngeen jaaroo maanaam kon ndeke borom kër bokk na ci doxalinam ngay xool li bu li njabootam di aajowoo fu mu toll ngeen koy jéem a indil bu ko yàlla maye foofa nag comme li nga waxee bu ko yàlla maye comme li borom bi wax li yunfiqu zu saatin min saati kenn ku nekk la nga am moom ngay dépensé. ومن قدر عليه في رزقه فلينفق مما آتاه الله كيف كو خامني يالا ديكو نتو امول امول لو باري نخول لا مو ام دال ديكو ديبانسي نخلن لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها يالا جوخول ساسول بن باكي لودول لام كو جوخ تا مونيكو سيجع الله بعد عسر يسرا غيناو بو ميت نيوي تاخاو جابال ني سا خيل دال يومبال ما سي توب لام مو تي موسى دم لان لا فا ndekele gënul neex ci aduna moko fay fekk mooy war faa dem dégg fa kàddu boroomam njaboot gi ñu ngi dem di ko moo tax wallahi nit du génn njabootam rek génn ko te yàlla rek tax muy uti yàlla di ko seetaan du ko seetaan mukk fu mu yàlla dina ko suturaal yàlla du mës génn dem di uti te yàlla rek tax pour njabootam wallahi yàlla du ko seetaan moom mu dem demee sax lu gën la mu doon uti moom la am njaboot gi xam nañ ni ndeke ñoom seen baay mooy muy ñu jënteel bi yonent soxna si xam nañ ndeke sama jëkkër mooy ñu jënteel bi doon seen am na fi moom mbaax gi moom mat na sëkk léegi fi ñu leen tuddatee ñu xam ni kii njabootu bu yonent la mbaax ga moom dañ ciy continuer yàlla dimbali leen ca ndax moom lañ doon wër moo tax yow it ba yow bàyyi xel yow sama jigéen li ngay wër rek la la yàlla di jox li ngay wër bu fekkee ne dëggu nga ca moom la la yàlla jox yi moytul nag di jéem a ne man lu baax laay wër fekk ne am na lay làq sa biir xol fekk ne dugg moytu ko yow it sama góor moytu ko bu baax a baax a baax Moussa dem dajeeg boroomam wax ba ñu waxee ndeysaan <laughs> am na suñu benn bu jàngal ci wàllu balaaxa di wax ni Moussa li mu def mooy <clears throat> dafa ñëw borom bi ne ko suñu say dàll mu ne ko lan mo nek ci sa càmmoñ mo mo nek sa càmmoñ mu ne Moussa ne ko sama yett mo ci nek yett wo xamanteni wax deug dama ci faj samay aajo dama ci sàmm yëpp li nga xamni moy sama mo moom dama ci sàmm sama juf loolu yàlla da ko laaj loolu lépp waaye déedéet borom xam-xam ci yalla balaaxa dañuy wax ni jokko gi ni jokko borom moy li neex te bëggul mu dag da fam solo mu ban bànneex ci xolam te bëggul mu dag mom motax mu guddal wax jooju yëpp waaw léegi mbokk yi parent ak jigéen ji doon wër lu baax lan lañu perte ñoom ci lii lan lañ perte kii mu may doomam bokk na ci ulul azmi min a rusul ci juróomi yonent yi nga xamante ni ñoom lañu wax na ñoom ñoo ci gën a dogu ci ndax perte na waaye nag la ma ko may dëggu dëggu ca la mu jëm la mu bëgg mooy mbaax dong wër lu ma texe lu ma indil texe àdduna ak àllaaxira dong moom laay wër moom dong dong dong laay wër moo tax yàlla jox na ko mu boole ci bokk ci yonent yi nga xamante ni li ñu nettali seen xisa kenn xamul nañ toll liñ kenn xamul nañ toll ci yonent yi gën a baax alayhim salaam kon nii la ñuy tabaxee kër nii la ñuy tànnee li nga xamante ni moom mooy nii la ñuy tànnee li nga xamante ni mooy borom kër nii la ñuy tànnee soxna yi li ma ci wax di ci gën a insister mooy base bi dëgg da ci am solo baax ngay wër xoolal baax waaye baax rek yëmu ca bëgg lu baax rek yëmu ca waaye xamal fan nga koy wëree te fi nga koy wëree yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na la ko nee na la ci diine la ak borom jikko ju baax boo ko dajalee rek li ñu naan xayri dunya wal axira dalaa nan muy njëriñu àdduna ak alaxira moom am nga ko leneen la ca des ci mooy risku rabbik te mooy wërsëgu sa borom. borom bi nee na la wo nahnu narzuquka wa iyyaahum ñun ñoo lay wërsëgal ak sa njaboot kon loolu bul ci tiit ci loxo yàlla la nekk bul jéem a dimbali yàlla ci loolu yàlla soxla ko ko ci dimbali yéemal ci la yàlla sant te moom mooy jéem a baax nekk ca kon yaakaar naa li laa bëggoon gën indi pour wane njariñ yi nga xam ne mooy nekk na ci histoire bi xam ne bokk na ci dëggu bokk na ci euh, booy wër wëral góor bu responsable borom diine koo xamante ni njàmbaar la waaye yow sama góor booy dem bay ci soxna xoolal borom ñoo xam ne ñu ay lañ ñu baax lañu ñoo xamante ni baax dong moom moo leen yitteel hmm? baax dong moo leen yitteel nga daal di fa dem dugg booy wër tamit wëral koo xamante ni baax rek moo nekk ci moom comme ni ko aaya bi waxee ku jigéen kay dem ñëw ci Moussa dafa nekk koo xamante ni kuy dox ak kersaw kersa boobu mandargal ci mandargay ngëm yàlla xaw na ñoo guddalaat tey wallahu taala alam wa raddana ñu ila aslam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته